ñu ngi fii ci Orléans ak alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass di sant yàlla ci ñëw fekk ko ci jàmm di jox jotal ay baati ndokkeel yoo xam ne mu ngi jógee ci moom jëm ci mbooleem ummal islaamiya waaye jëm ci mbooleem taalibe yi fu ñu mën a nekk waaye jëm ci mbooleem Sénégal jëm ci njiital Sénégal muy président Macky Sall waaye jëm ci mbooleem kilifa yi nga xam ne tim ñu ngi ko utu ci médina taxaw ci taxawaay bi nga xam ne moom ak ñoom ñoo bokk di ko def ba léegi tim ñu ngi séddoo taxawaay boobu mu ngi ndokkeel ñëpp ci weer yi nga xam ne mooy mawlid rahma mawlid xayril bashar mawlid seydina muhammadin sallallahu alayhi wa nga xam ne heure bi xoli taalibe yëpp ak soppe yëpp ñi ngi ànd ak Medina ci di ko feetu bët bu set ci tehnia ci jàng tefsir ci jàng xadis rasulillahi sallallahu alayhi ci ndigalal sëriñ bi mu ngi ñaanal gan ñëpp ñi ñëw ci jàmm fekk jàmm dellu ci jàmm it ànd ak gàmm goo xam ne gàmm guñ nangu la ñi ngi ñaan ci mbooleem taalibe yi ñu ñaanal ko moom mu ñëw fekk jàmm ànd ak ñun ci li nga xam ne ci loolu lañ jublu muy gàmm gi ñuy nekk yéeneem ba tey jii mooy ñëw bokk ak nit ñi euh, xew-xew boobu waaye ba tey mu ngi dénk ñi nga xam ne ñooy taxaw bés boobu te soxlawuñ fàttali ndax fàttewuñ ko ndax ñoom ñëpp ñu ngi taxaw taxawaay bi nga xam ne moom lañu war taxaw ki nga xam ne mooy euh, naaibul xalifa cheikh Mouhamadul Mahi mu ngi koy jagleel nuyoo waaye mu ngi jagleel cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne moom mooy méngoo gàmmu gi euh, te commencé na ko ba weer wi tero ba léegi waaye mu ngi jagleel nuyoo tamit imaam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ak ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom di ko jàppalanteeg moom ci liggéey bi di nuyu njaboot ci Cheikh Ibrahim yëpp fu ñu mën a nekk di ndokkeel taalibe yëpp di leen wax ne Medina ngi nii mooy Medina bu ngeen amoon démb mooy bi ngeen am tey ne ñëpp ñëw ànd ak euh, xol yu ubbeeku pour dooleeku ci mbëggeel yàlla mbëggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dooleeku ci xam lan mooy jubluwaay Cheikh Ibrahim ci taxawal gàmmu nga xam ne jàng siiratu nabi sallallahu alayhi wa sallam delloo nit ñi ci sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bés la ay yoo xam ne bési tudd yàlla la bési sant yàlla la bési leela ñam la ñi ngi fàttali ñëpp ñi xam bés boobu comme niñ ko daan defee ñi dellu defee ko noonu comme niñ ko daan defee ñi ngi ñaanal sëriñ bitim mu ñëw fekk njaboot yépp ci jàmm te loolu mooy éeneem ndax lam baayam doon wax rek euh, weeru yonent bi sallallahu alayhi waxtu wu teroo fu mën a nekk xolam yépp ci Medina nekk moom it loolu la àndeek ñun ci loolu loolu mooy waxtaanam loolu mooy jëfam euh, ñu koy bàyyi mu wax rek ñaari baat yoo xam ne dafay ndokkeel umma bi yépp ñaanal ñépp waaye ñaanal gan ñi ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm waaye ñaanal Sénégal tim ñu dugg ci gàmm gi génn ci ci jàmm ah yàlla may ñu Sénégal boo xam ne bu yëkkati ku lay nekk yàlla ah, dimbale ñi nga xam ne ñoo amee noskaay réew mi muy dale ko ci président Macky Sall yàlla teg leen ci yoon wi nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy dimbale askan wi dimbale leen bañ mën a dëggal ci yaakaar yi nga xam ne ah, ñi leen tegaat ci kanam askan bi yaakaar yooyu lañ amoon ci moom kon ñu bàyyi sëriñ bi mu nuyoo rek ñaan salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bu ñu sante ci yonent bi daanaka amul dara xam ne dañ ko dolli ci li nga xam ne moom la Cheikh Mahi di leen ziyaara te di leen ku nekk ci turam ak santam rawatina ñi nga xam ne ñooy setti sukkor si nga xam ne ñooy dundal eh, gàmm gi ak mboolem xew-xew yi pay bi ñu ngi ku nekk ci turam ak santam di ñaan yàlla nekk suñ ndimbal di ñaan yàlla dimbali ñun ci xew-xew yi nga xam ne moo dëgg ma si dañ def ko nu mel ni ni ñu ko daan defee wala nu raw ni ñu ko daan defee eh, weer yi weer wax ne waxtu terwaan wala mu si eh, dafay feeñ ci kanama bàyyi ci waxam ci tabeem ci léppam Eh, ba nga xam ne dangay mën a na di sentir loolu ci moom ci mboolem ay yëngatoom ak i dalam ñu ngi ndokkeel ñëpp di ko njëkkee moom ci boppam moom ci bàyyi ci boppam eh, seete su si nga xam ne eh, ñoo saytu pee bi di ko dundal ci ñooy saytu pay bi ñu koy dundal ci fan yu mel nii